jërë ngeen jëf mbokk yi nii bàyyi xel tey jii la gaaw yem ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram 1443 hijri dëppoo ak samedi 28 août 2021 mbokk yi mu di bis bi ñuy fàttalikoo jàmbaari lislaam ja Cheikh Mouhamadul Moustapha ci bis bi mu tànnaloon kilifaam nga Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul te mooy bis bu Serigne Touba Xaadim Rasoul fanaan see Touba pàkk bi Serigne Bamba Xaadim Rasoul gënoon a bëgg pàkk bi nga xam ne. def na listixaaru sunna ba tàyyi ngir wër suufuk Touba ba leer Touba feeñoo ko fii ci Daarul Xudoos muy pàkk bii nga xam ne tey jii fi la Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim dëkke mbokk yi looloo tax Serigne Moustapha Mbacké kere ba mu defee njàmbaar jëlee Serigne Touba Xaadimu Rasuul njaareem andi ko Touba gis boobu ngëneel li ci nekk ak tawfeex ci ci yàlla def tax na Serigne Modou Moustapha Mbacké yéene ko mboolem umma islamique ba tax mu wax ne guddi gi saa bu dellu see fub taalibe nekk wala ab julit bu ko mën na nga fanaan si Touba wax na sax baag ci ne boo yoree ñaari mbubu na nga jaay mel na mu ko ngir fanaan si Touba ngir nekk ci fanaan si Touba mbokk yi kon nag euh, daarul xudus di màggal guddi googu Serigne Touba Xaadim Rasul fanaan see fii ci diwaanu Touba tax na àddina wërngal këpp fu daayira nekkoon bàyyi ko na fa ñëw mbokk yi fii ma tool di wax ngeen di teewlu maa ci ci kor bi nga xam ne bi ñu noppee gis Cheikh Moustapha Al Karim ki ko njëkk a wuutu di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma moo ko fi defoon mbokk yi taalib yëpp di ko tuddee tokkoru Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu amoon taxawaay bu rafet gannaaw bi ñu noppee gis Cheikh Moustapha al Karim ci diggam ak euh, dëkk bi waaye digg ak yoon wi waaye digg ak lislaam mbokk yi yaatu lool loolu liggéey bi créé woon lii nga xam ne moo di daayira Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doon ci defar ay nit leen ci yar di leen ci leen tarqiya waaye nag li ñu wax a jamaat rahma mbooloo mooy yërmande tax Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma créé woon mbooloo moo xam ne dañuy dimbalante di rumalante di jàppalante mbokk yi daayira bii ngeen gis ñu nekk ci sama ginnaaw mooy ajamaatul rahma ajamaatul muridina sadiqin ajamaatul muridina sadiqin di mbooloo mu takku àndandoo dëggu te liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul muy dongay tarbiye yi nga xam ne dañoo jaaroon ci daar ji ñoom nag li ñu waraloon ci bis bi mooy saa bu bis bi dellusee taalib yi dajaloo di ko màggal ñu nekk fii ci tokkoor Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma togg ay añ togg ay ñam ay berne yu mucc ayib jébbal ko mbooloo mi mbokk yi noonu nag bu ñu paree dañu daal di àndandoo yenn ko yenn bu rafet jiitlante wuti nag ca pàkk bu sell ba kër Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacke bi fi nekkal Cheikh Moustapha al Karim waaye distribué mbooloo fu mbooloom Cheikh Moustapha mi nekk mbooloo fu mbooloom julli mi nekk ñu yóbbu fa ay berne ak i xéewal kon daayira bii nga xam ne mooy euh, jamaahatul muridin sadiqin ñoom noonu lañ fas yéene ànd kon damay ànd ak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 route de Belel euh, tokkaru sëriñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma euh, jërëjëf sëñ bi ci laaj bu am solo bi tënk bi lu yomb la mooy ku ne xam na ne bis bii tey di gaaw di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci mois de août euh, bis la boo xam ne ci weeru tubaab ci la sëriñ Touba Cheikhul Khadim ñëwee woon Touba sëñ Modou Moustapha indi ko joxoon ko ndigal bis bi saa ñëwee ñu di ko fàttaliku waaye nag ci fàttaliku boo xamante ne bii fàttaliku jàng alquran jàng ay xasida def ay ay tasbihaat man ak yàlla loolu mooy dëgg dëgg bis bi loolu ci ngeen nu fekk kon noo ngi ci bisu màggaluk Daarul Xudoos kem ni ko sëriñ Modou Moustapha digalee woon ngeen fekk nu fii nuy màggal bis bi loolu ci ngeen nu fekk. waajtaay bi nag népp nu ñuy waajale bis bu baax moom waajale nañ ko ndax nun fii ngeen nu fekk ñetti fan lañu fiy def démb lañ tàmbali woon li ngeen nu fekk nu koy def nii defoon nañ ko démb. dañ koy def tey te bu subaa tam incha allah ci yeewi kur bi dañ koy def maanaam ñetti ñetti fan la ñuy am noonu ah, waaye nag bi joxe ay chiffres exacts loolu moom du sunu mbir loolu euh, maanaam bu ngeen demee bayti ci sëñ Makhtar Ndiaye moom mi ñuy jébbal liggéey bi bu ñu ko jébbalee sëñ Ahmadul Makhtar ba pare moom bu noppee euh, bu ngeen fa demee moom da leen ko wax te loolu yi dana ko faral di defal waa waa waa presse bi ñaare waaye ñun ci ni ñuy liggéeyee joxe ay chiffres ci tonnage bi ak exact maanaam daal ay teraanga yu bari lañ fiy def wax dëgg yàlla dara jeexul seen ngeen nay ne seen ngeen xar yi seen ngeen itam kenn ku nekk ndox meeg lenn lu nekk mi ngi koy def waaye chiffre exact moom euh, ñaare duñ ko faral di joxe nag waa daayira bii ngeen fi fekk muy ñu sol lu mboq yi ak yu bula yi eh, nga xam ne man mii ci laa bokk yore soon communication moo tudd ja daayira jamaahatul muridina saadiqiina loolu la ñu tudd daayira jamaahatul muridina saadiqiina nag mbooloo la ñu moo xam ne ay dongoy laxasaay la ñu yoo xam ne dañoo nekkoon ci daara di tërbiyewu bàyyi seen kër ndey ak dem ci daara di tërbiyewu loolu nag génération par génération la la ko tàmbalee ci sëñ Modou Moussa ba 45 bi mu fi jógee daara yam fi bàyyi woon ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma 45 ba 78 bi mu fi jógee tàmbulee ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma 78 ba 2005 sëñ Mbacke Soxna Lo bi mu fi jógee waaye 2005 ba ci nëgëri euh, xalifa sëñ Mbacke Soxna Lo muy euh, sëñ Moustapha Mbacke Mouhamad mbooloo mii ci càlla la googu la ñu nekk bépp dongo boo xam ne jaaroon na ci daaray tërbiye woowu yaa ngi ci biir mbooloo mi da ngeen ci gis ñoo ñëpp mbooloo moom nag moo tudd mbooloom jamaatul muridin saadiqina tey jii ñu koy wax mu nekk ci loxol sëñ Moustapha moom sëñ Mbacke Mouhamad waaw moomu nag moom moom la ñuy liggéeyal fii liggéey bi nag ah, mille la ñu ko sëñ loo Soxna Lo mille en kon léegi defe naa ah, def nañ ko 20 ans waaw ñi ngi fi di ko liggéey boobu it sëñ Xaadim Mbacke moom Cheikh Mamadou Moustapha moo nekk xalifa Daaru Xudoos ah, sëñ Mbacke Mouhamed dafa waxoon ne damaa bëgg ngeen dem di defar ay xéewal di ko yóbbul ki fi nekkal sëñ Mamadou Moustapha at moomu am na seen benn collaborateur yàlla na ko suñu borom doole leer sëriñ Kamal Fall xamaa nga xam ko sëñ Mbacke Mouhamed booba suñu portable yi bëreewul bëreegul da koo jox benn portable ne ko na dem ba ca tookor ba dongo yi suñu paree bu ñuy indi añ yi njàng moom mu ñuy jàng eh, nga di ko enregistré ma nekk fii di déglu at moomu la ñu ko njëkk a def waaw ah, suñ kamal noo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax ko amoon posef eh, kon loolu mooy sabab bi sëñ Moustapha bi mu dikkee ndigal loolu mu feddali ko saa bu nekk boo xamante ne bii itam maanaam bis bi jub na mu woo jëwriñi mbooloo mi nga xam ne maanaam moom moo nekk suñu njiit muy Serigne Bara Lo moom Serigne Modou Lo Mbéri euh, fat yeesalal ko bis bi hmm. loolu moom ngeen fekk euh, ñu di ko def nii kon loolu moom mooy liggéey bi waaw añ yi noppi na fii ma taxaw nii xam naa yaa ma xaw a kii sax ne waaye euh, équipe bi ñu dem ak kilifa yi koy jiite tëralin wi ay commission la def boo demee ci installation wa maanaam commission d'organisation rek ak sous commission yi nekk ci ronam Euh, restauration installation intendance ñoo ñëpp ñi ngi ci bànqaasu euh, organisation lépp li ñu war a def ci bis bi ñi ngi koy def commission de sécurité gis ngeen leen léegi euh, ñi nga xam ne am na ñoo xam ne ay vigilance bi ñoo ko yor ci biir nit ñi ak ñi nga xamante ne bi dañuy dox ci kaaw social ñi nga xamante ne bi dañuy dox ci wàllu lép loo xam ne wàllu communication la éducation et culture ngeen gis ñu jàkkaarloo la ñoo yor njàng mi ak alxuraan jeeg yu demee ndax loolu yi mooy dëgg bis bi dëgg dëgg dëgg dëgg commission yooyu yëpp kenn ku nekk commission bi mu nekk ñetti fan yii yëpp dafay amal liggéey boobu ci anam moo xam ne bu ñu noppee nag ba nga xamante ni bii noppi nañu dañuy sëñ baar mi nga xam mooy kilifa day yónnee ndaw ci sëñ bi xamal ne ko li nga doon def noppi nañ toog toog di déglu ndigal sa kuuñ ci nag mu ñëw wala mu yebal kenn waaye ku ñuy liggéeyloo rek nga moom mu ñëw bu ñëwee di yewi si loola moom moo koy xam bu yebalee kenn bu waxee sëñ baar ne ko yeewil gars yi wala bu nee wasalaam it loola moom moo koy xam waaye doonu loo xam ne nooy sàkko ah léeg-léeg dan màggal dan si noonu ba ñibbi duñ gis sëñ bi waaw duñ ko gis ndax bu nekkee ci ndigal di rek noonu noonu noonu moom mi ngi nuy gis ndax lan yaral xafaaya bi aynil qalbi saahiratan kama yusaahidu ma taxtal akinati wasalaamaaleykum wa rahmatullahi barakallahu Serigne Cheikh kan mbokk yi kon dégg ngeen leeral yo am solo yi tukkee ci Serigne Cheikh kan jëm ci mboolem askan wi ak daayira bi nga xam ne mooy ajamaatul muridina saadiqin ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bi jox na leen ndigalu di ko def yaakaar naa dégg ngeen kaddu yu leer yu am solo yi mu ci teg kon loolu rek mooy tegtale ne jëfe ndigal rek a woor noo ngi sant nag bu baax noo ngi ñaan laat nag kon bu baax suñu jëwriñu bopp Serigne Moustapha Kamal moom mu tudd léegi nga xam ne daana ñëw ànd ak ñoom liggéey bi sama borom dogal mu dëkkaale jéeg suñu borom subhanahu wa taala Serigne Moustapha Kamal ak mboolem julit ñi ñu fa fekk ñu ko fekk yàlla na yàlla doole yërmande ci ñoom ci barke bis bii nu taxaw yàlla yàlla doole seen xéewal ci barke bis bi nu nekk yal na yàlla dolli seen jàmm seen rajo lislaam barke bi Cheikh Mahamadou Bamba Xaadimu Rasuul kon gaañ yi ba léegi rek ñu wéy ànd ak yéen ci liggéey bi dig daje ci yeneen jotaay ci fii ci Daarul Xudoos ak bis bi nga xam ne mooy dikkuk Seexul Xadim ci Touba ci taxawaayu Cheikh Moustapha al Karim ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mbokk yi ñu ñaanal Serigne Ahmadou Moukhtar Mbacke mu yàgg fi ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Mohamed mu yàgg fi kon mi ngoog ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Touba noo ngi lay nuyu ci turu Serigne Bara mi nga xam ne moo jiite donga yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha Mohamed di la jottali ay kàddu yu gàtt rek yu jóge ci mboolem taalibe yi muy kàddu yu ñaan rek ak sant di la ñaanal bu baax a baax ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne moom lañuy defal bés bi ak barkeb Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo koy defal dongo yëpp àndandoo nañ di ñaan suñu borom yàggal la fi lool nga yàgg ci kanamu njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gi ba li nga ci yéenee liggéey lépp suñu boroom defal la ko ca mu ànd ak wér kaddu yi ci tege mooy dongo yi wax na ñu ngi sàkku ci yow nag ci barkeb Cheikh Mouhamadul Moustapha ci barke bis bu tedd bii nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha jëli woon Serigne Touba Njaareem andi ko fii mu tëdd ci barke pàkk bu tedd bii di buqatul mubarak ñoo ngi lay ñaan nga ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir ñu dey suñu bëgg lépp ma ngi ci biiru bëggam kon ñoo ngi ñaan nga ñaanal ko ak bëggam ci lislaam ci toolu Serigne Touba bii suñu boroom defal ko ko mu àggale ko ci jàmm cam ànd ak jàmm lépp loo xam ne sumb na ko ngir liggéeyal ko lislaam ci ëttub sëriñ Touba bii suñ borom defal ko ak bëggam ndax xam nañ ne saa bu amee ak bëggam rek waxuma la jul waxuma la murit yi waaye jullit yépp seen mbir dana ci defal kon ñoo ngi gàttal kàddu yi foofu xam ne daal junj daal doy na boroomum xel ca yéen jun am ci moom xam na ne yaa ñu ko ci ëppale waaye nag ku agsi ci docteur wax ko sa jàngoro suñ jàngoro daal mooy nga ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha di ñaan bu baax itam way juróom boobee di suñu yaakaar yi tey ak ëllëg Cheikh Mouhamad Mbacké nga xam ne liggéey bii moo ko tegoon ci suñuy loxo ñu tàmbalee ko ci Cheikh Ahmadul Serigne Khadim Mbacké baax si si jëmm ji dëgg la daanan màggal kenn ku ne daan nekk sa kër di ko ko màggale waaye nii mu ñu ko sante nga xam ne fu fab donga mën a nekk ca jóge ci daara ji foo mën a nekk boo dikkee Touba sam xel du nekk fenn fu du dem ca tokkóor ba ngir sëriñ bi dafa waxoon ne gani Cheikh Mouhamadou Moustapha yii man maa leen war a teral ca yéen yi nga xam ne yar naa leen ba gërëm leen li ma bëgg ci ñoom yéen ñii laa jàpp ni yéen a ma ko mënal dong yi nee na ñu ngi lay ñaan nga ñaanal leen lépp loo xam ne andi nañ ko fi su déwénee yàlla na doon asakay liñ fi liñ fi war a andi am nañ yéene day lépp loo teg sa bët ren ji bu ëllëgee da teg lu ko xaw ma wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf si Ahmadou Mokhtar bi yëpp mi fi nekkal cheikh Mouhamadul Moustapha ne ji bi kanamu njabootug cheikh Mouhamadou Moustapha gépp moo leen di nuyu boole ak cant ak i ngërëm ak i ñaan kii ñi nga xam ni tey mooy seen jawrin ci buntub seex Muhammadul Moustapha bii nee na ñooñu ñëpp it mi ngi ciy jiital jawriñam ji di taawam di sëriñ Cheikh Mbacké Madina nee na di ca teg rakkam ju baax ji sëriñ Abdourahmane Mbacké Gaynde Fatma waa ji ji teg nag seen taaw bi nga xam ni toogaay bii bi ko wajuru wi dee def xalaat ko bi mu ko ko bàyyee gis nañu fi mu ko indi sëriñ Abdou Muxtaar nee na ci turu njabootu sëriñ Modou Moustapha gépp ak seex yëpp ak taalibe yépp bàyyiwul kenn mu ngi leen di ca sant ci seen tur di leen xamal ni jëf jii lu jara xam lu ko sabab la lan moo sabab jëf jii ak bisub tey bii indi gi nga xam ni Cheikh Moustapha mu mat mu tedd mu sell ma indil lan ko sëriñ Touba fii ci Touba ndax sëñ Touba kat fu mu mënoon ne ci àddina ñëpp dem ca moom kon indi gi mu ko indi mbooleem ku bi jullit rawatina ko yaakaar sëñ Touba ameel nga Cheikh Mouhamadou Moustapha ak cant ci indi gi mu la indi Serigne Touba fii ci Touba gannaaw loolu bi ko sëñ Modou Moustapha dee def li taxoon mu di ko def mooy ñaanal Serigne Touba ak jullit yépp mooy bis la boo xam ne bisu ñaan la jàng alxuraan jàng xasaayit julli ci yonante bi saafoonte teral bi ndéef yi loolu moo taxoon mu sos bis bi kon tey jii bis boobee wuyu na boroom ndax kii mu fi bàyyi di sëñ Ahmadul Muxtaar noonu nii la ko def loo jàngalu alxuraan jàng xasaayit julli ci yonante bi saafoonte teral bi ndéef yi noonu nii la ko defee ci toogaayam bii kon moom mii toog nekkal fi Cheikh Mamadou Moustapha njabootug sëñ Mamadou Moustapha gépp ñu ngi koy sant ci taxawaayam bu rafet ci matam gu mu mat ubbi ko ak woyof kenn ku ne mu jox la sa ak sa wàccuwaay ñoom ñëpp ñoom maasa yëkkati seen baatub cant jaarale ko ci nun mu jëm ci sëñ Ahmadou Moukhtar Mbacke mii fi nekkal Cheikh Mamadou Moustapha kon sëñ Mbacke Mouhamed yàlla ko yàlla fayal. bi nga xamee ni sëñ Aliou Mbakke moom sëñ Mor Moustapha jóge na fi dafa daal di taxaw wax sëriñ Cheikh Mbakke mat na ni ko sëñ Xaadim mii ne woon bitim réew di ñëw de war a wuutu sëñ Mor Moustapha nun ñii noo ko war a taxawoo sëñ Mbakke soxna loo moo xalaat xalaat boobu moo génnee ndigal loolu jox ko njabootu sëñ Mor Moustapha gépp jox sëñ Cheikh rakam ndigal ni ko lu jëm ci ay ñam danaa ko def lu jëm ci ndox ak boisson ak la ci war na ko def sëñ Cheikh nangul ko bisub keroog sëñ Xaadim toog ak bisub tey bii dara manqué ci lépp mat na sëkk kon sëñ Mbakke Mouhamed sëñ Moustapha bii mënu fi bàyyil mu jël liggéey boobu ci moom lépp lu mu doon def benn def na ko fukk lu mu doon a def ci lu rafet gën naa rafet nu mu bëggoon ci mu yaatu gën naa yaatu kon bu sëñ Mbakke so soxna loo delsi woon bu gisee lii sëñ Moustapha moom def dana ko ni jërëjëf sëñ bii toog nag sant na setam boobu te di ko ñaanal te di leen xamal ni dellu leen ni ko sëñ bi nee na ak bëggam moo ko xam yàlla dana ko defal ci barke Cheikh Modou Moustapha ndax jëf ji jëf ju mat la joo xam ni lenn lu ci manqué amul te sedd na xolam bëgg na ci mi ngi koy ñaanal yàlla noonu yi nu ko ñaan lun taalu ba yëpp Cheikh Moustapha Mohamed ak bëggam mu am ko su ko amee ñëpp na am li nu bëgg kon sëñ Ahmadou Moukhtar jërëjëf njabootu sëñ Modou Moustapha gépp ñu ngi lay sant ñu ngi lay bëgg ñu ngi lay doyloo di nekk sa gannaaw loo digle ñu def ko loo tere ñu bàyyi ko mën nga leen sëkk kilifa Mbàkke noo ngi lay ñaanal nun dongo yi toog yëpp ak dongo yi ñëwul saw fan gudd te nga wér yaa xam sa bëgg yal ko yàlla defal Mbàkke yàgg fi lool jërë ngeen jëf tàllal leen yéen ñëpp te wax amin sëñ bi ñaanal nu yi faju mën a dina si déwén wax yal na ko yàlla defal. te bëgg